kàddu yu am solo yi nga xamante ne xalif général kullu murid di Serigne Mountakha Mbacké yëkkati na ko jëmale ko ci taalibe yi ci wàllub diine waaye tamit ci jikko nga xamante war nañ ko gën a sàmmati Le Soleil yéenekaay di ko ci feelu di xam ne ni kon Touba moo nekkoon bërëb bi nga xamante ne ñëpp fa ñu daje ngir màggal bi ci alxamis gi alxamisu mbégte L'Observateur di xam ne ni kon ca Touba la xewee yéenekaay bi di xam ne ni donte nemmeeku nañ fa ab taw ne ay jafe-jafey bëri tamit waaye teewul taalibe yi gënoon nañu woote gi ren ji enquête yéene kay di xam ne ni kon dafa ànd ak coono gu métti ngir taalibe yi ndax bokk na ci li mu lim ni ay jafe-jafe ñàkkum ndox mi xuy kamat gi ci wàllu courant bi ba ci sax mbënn mi nga xamante ne sonal na lool ñii di askan wi ci biir yéene bi di enquête tamit mën nañ faa jàng lu bari ci naataalu soxna yu xalif général yi nga xamante ne ñoo fa jot a jaar ak cër bi nga xamante ne jox nañ leen ko foofe ca Touba Touba ak tolluwaayub jamono Walf Quotidien di xam ne ni kon atum ren ji mbir yi gën na ndax njëgu dund sax ba famille yi dalal taalibe yi foofee ci dëkk bu tedd ba daanaka ci coono lañu ko defee atum ren ji moo tax am na ñi nga xamante ne nag ci ndakaaru la ñu des ci biir yéenekaay bi yooyu la taalibe di wax lan moo waral nag ñu daal di taamu Masalikul naan ngir amal fa seenub maggal màggal bi ren Vox Populi di xam ne ni kon li ñu am ci lim ni lu ñu am ci lim ni ay taalibe yu fa dem mësuta am waaye tamit li ñu dund ni accident metti na lool suñu naataango yi di xam ne ni lu ëpp téeméeri doomu aadama ñoo ci loru ci ñoom ñaar fukk benn ñoo ci jote bakkan te yëf yi mën naa gën a yées fii ak ñëpp di ñibbisi fii ak suba le quotidien yéenekaay di xam ne ni njiitu réew mi Macky Sall dina tabb premier ministre ñu ciy taftal nag mooy tabb guvernement bi nga xamante ne kon ñu ngi ko ciy xaar waaye yéenekaay Madiambal Diagne bi di xam ne ni njiitu réew mi bu ko defee ba noppi daanaka coow li di ko fi fekk ndax dafay tukki Les Échos di ko ci feelu di xam ne ni kon njiitu mi dafay tab ba noppi daa di wutali diwaanub Londres ak New York ndax moom Macky Sall dafay teewee daju ren Elizabeth II ba noppi teewee tamit assemblée générale mbootaayu xeeti ca New York muy tukki bu sori kon buy xaar njiitu réew mi Macky Sall moom Macky Sall laata muy dem Vox Populi di xam ne ni sonju na ay nitam ngir ñu sóobu bu baax ci xeex bi rawatina ci biir assemblée nationale xeex bi nag du yem rek ci kuje gi ndax Sud Quotidien mu ngi ñuy xamal ni Aminata Touré tamit dina bokk ci ñu ñuy song yéene kaay groupe Sud Communication bi di xam ne ni gannaaw lañu defoon Moustapha Cissé Lo ak mbay njaay ba ñu jëlee leen ci assemblée nationale boo moytul lu ni mel la soxna Mimi Touré war a dundi tamit ndax Sud Quotidien na ni pexe yi tàmbalee noppi ca palais de ci wàllum tamit moom Mimi Touré toogul rek ne nemm ndax xeex bi ma ngi koy gën a baral maanaam ma ngay accélérer la cadence noonee la ko Walf Quotidien sax duppee ndax kàddu yu mujj yi nga xamante ne député bi yëkkatiwaat na ko ci TV5 ci coow lu nekk Walf Quotidien dénk na kàddu Abdoul Khadre Sanoko nga xamante ne analyste politique la muy xam ne ni kon Mimi dafa mel ni ku yàkkamti ci xeex bi xeex bi diggante opposition ak pouvoir ci biir assemblée nationale bi le jour di xam ne ni Macky bàyyil ko rek député yi moom njiitu réew mi daf yéene takk rip moo tax mu mel ni sax kuy dànkaafu député opposition bi waaye tamit ñi nga xamante ne ñoo fare ci benn bokk yaakaar ñi far ak équipe nationale bu Sénégal tàmbale nañu dund njàqare li ko waral mooy ñu bëri ci équipe boobee nga xamante ne ay cadre lañu nekkuñu ci seen forme ñeneen ña ñàkkum temps de jeu toftal ci sax ñi nga xamante ne ay gaañu gaañu lañu amee moo tax stade quotidien di xam na ni moom alerte rouge lañu nemmeeku ci biir tanière bi laata jongante Sénégal ak Bolivie waaye tamit ak Iran ngir waajal coupe du monde bi bokk na ci ñooñee